franchement parler c'est-à-dire que amuñu benn respect ak ak considération ci peuple bi xam nga daf ci am bi man je le dis souvent j'étais dans un parti politique mais moi, ma mooy gars yi bu ñu daf ci am bi ñoom bu koy waxtaanee engagé wul peuple bi te amul kenn ci histoire politique bu Sénégal lu ci leader di am ci wàllu responsabilité du peuple bi joxuñu la ko deuxièmement moi, man damay déparé de Léopold Sédar Senghor en pensant par Abdou Diouf Abdoulaye Wade jusqu'à je défie tous les politiciens amul kenn ko xamante manam yow manam peuple bi jaral nañ la sa amul tay gis ko ci gis muy yuuxu di top di dal day défendre ses intérêts crypto personnels loolu mo am loolu mooy réalité bi c'est-à-dire que li ñu def moy dañu fekk lu ñepp mom un euh, euh, groupe de personnes pàccoo au détriment de plusieurs millions de personnes aujourd'hui Le situation président de la république du woote dialogue il pouvait éviter cela Même le président Macky Sall parce que Il y a un jour bukki euh, lëg top, hmm. gaynde toog ñay ñëw indi trois plateaux yap, ne ah man ne dama un ngénte mais gaynde gisuma la gisuma bouki gisuma la donc puisque gisuma len li moy sen wal ci sama ngénte bi mu jox leen trois plats gaynde bi ne mais euh, bukki aja defal euh, distribution bi eh, monako mais gaynde loolu kay jarul wax ñun ñet ñofi nek ñay indi na trois plats mais da ngay jël benn ma jël benn la jël benn xam nga loolu moy partage équitable mhm. loolu moy lu logique gaynde dafa mer ba mbéj bukki bëtu bukki bi mo dal ci benn garab

dafa neexul mais mag dina tëdd di nelaw di gis lu sori xale jóg taxaw te du gis dara Cheikh Anta jóg am na benn paa bu tudd Babacar wax na ko ci réseaux sociaux yi nee na Anta Diop Cheikh Anta en 83 février 83 moo ma dénkoon lii nee na ko Abdoulaye Wade sera président de la République du Sénégal mu ne ko loolu yow doo ko fekkee diw du ko fekkee man Cheikh Anta Diop du ma ko fekkee mais yow Babacar di nga ko fekkee. mu ne ko nag dinaa la yóbbante te yóbbante bi concerné wul Ablaye Wade mais kii remplacé Ablaye Wade après. Mhm. kooku moo war a ñëw teg ay institution yoo xam ne kenn dootu ko mën a euh, kii. vous voyez mu mu mu sécuriser ko sinon bu ko deful il sera mort trois fois mu wax ko li mu war a deewee et tout ça beneen bi mooy bi gën a yéeme dana ko su moytuwul mooy nekk le premier président boo xamante dañ ko coup d'état te du wàcc ak bakkan ci pouvoir xam nga loolu ñun yéene wuñ ko président Macky Sall. te man je le dis souvent toog naa ci ay plateau télévision ma ne de Léopold Sédar Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade capitaliser cette réalisation manama gëm ne Macky Sall mo len raw. Mhm. ci walu réalisation. mais dama wax ne c'est le plus mauvais président ci walu politique man loolu gëm c'est-à-dire que s'il s'agit mu liquider la Macky Sall du calculer bu la walé ray ngir intérêt crypto personnel De da lay liquider dem yoonam. lolu nak bo nekkee ci rew mo xamante bi yow dañ lay considérer que ne yow bo nekkoon jigen do am wujju loolu fa yémé donc Fila laa accéder au pouvoir c'est fi sénégalais pour accéder au pouvoir c'est c'est manque de respect vous voyez mhm. donc man li ma gëm mooy dialogue avec fi te li dialogue bi mooy dañ dem ba situation politique bi dafa tendue mhm. coow li bari mu dialogue chef religieux yi vous voyez les leaders politiques la société civile tout le monde artistes tout le monde nous avons dialogue est une solution pour Sénégal. Mhm. donc tey nag a ba ci ben ci mathématique politique calcul bi dem ba yow nga calculer ba dougal sa des ba paré xamoto no ci né nak dialogue et puis li gëna li c'est-à-dire que. Mono, mono, mono, wax ak conseil constitutionnel. ñu fixé ay date le 25 février 2024, moy nek élection présidentielle. ñu nak pour nga mën participer. sénégalais bu ci nek su plus de 35 ans tu sais lire et écrire vous nga am nationalité sénégalaise am nga droit nek candidat. Mm-hmm. mais il y avait plus de 200 sénégalais qui ont manifesté ils ne ñoom candidats. candidat conseil constitutionnel jox ku ci numéro Qui numéro 1, qui numéro 200, qui numéro nangam ku ci nek wacc terrain bi nit vous voyez ak parti ni Dakar dem ba Dakar dem ba Tamba fu nek ñu wër ko ci Sénégal am ñu dem ba diaspora choono bobu yépp nit ñi daj ko ñu conseil constitutionnel momit mu ñëw di def euh, euh, euh, dire que di def partage bi biñ parmi les 200... 80 yep dañ leen recalé kon donc maintenir nañ ci 20 personnes 20 yi ñoy nek candidats yi mais parmi les 20 daf ci ka am ko xamantene bi soralé sóoraale ko won li indi problème bi yep moy daf ci am ko xam soralé sóoraale ko won te muy Bassirou Diomaye Faye. Mhm. ñu won né mom bu bokké ak âge beeg ak manam manque d'expérience étatique beeg yoyu ampleur bi mu am tay du ko am. Mhm. donc moo tax ma la parfois. Euh, li olof de wax ne euh, ku ku añaane sa ndono sa ndey mujjé ñaaw fait, dans leur piège que ne dem ba retrouver euh, renseignements généraux. Mhm. def nañu terrain bi ba ñew ne len soy gis ngeen ont bu ngeen dina pour risque le danger pour nan moy Macky Sall mo ñew né donc euh, décret bi nga xamanteni mo moo né dañuy yóbbu élection yi. Mm. décret bob bis ni ki tey annulé nañu ko. donc. euh, euh loolu ah. mooy euh, mbirum accusation yi ak ki bi. motif bi mu joxee. motif waaw ba ba annulé kii am double nationalité yeeg et tout ça mm. donc dal créé nañ. seen situation de corruption des juges quoi ah, après da ngay comprendre xamné ne véritablement Macky Sall dafa manque de respect sax la justice sénégalaise. alors euh, monsieur Thiam ndax da ni euh, du euh, lenn manège créer uniquement pour écarter le candidat. waaw xam nga c'est-à-dire que Sonana, xam nga deug quoi. la xam nga ndof mhm. la. nit bu lay wax da dem ba contre fekk contre la de dëgg rek la la wax yontu yàlla Ibrahim, Ali salaatu wa salaam Bayam da doon jaay ay mais moom un jour me dane ko Demande marché nga remplacé ma bi mu ñëwee dane yéen waa marché bi eh, sama baï yi muy jaay le. la ku de jënd jënd nga pourtant contrôle papa mais dëgg yàlla la wax tey nag dëgg gi mooy soxna Anna gars yi dañu jóg xam ne fi ñu jëm du fofu buñu fa démé déception totale la ñuy am te fi mu nekk nii ak li nga xamante ne bii tey euh, euh, maanaam opinion nationale bi internationale bi ñu ngi koy jiiñ gouvernement Macky Sall. ci lu ñu def ci ay ci ay ci ay ci euh, lobby ci ay affaire yoo xam neexul Sénégalais donc ñii nga xamante ne bi ñooy ex Pastef. dafa am lu ñu jàppal gars une fois que tey ñoom ñu accéder au pouvoir dina metti lool ci Macky Sall ak nguuram donc ñoom bi ñu demee ba xam affaire bi fi jëm baaxul ci ñoom mais dañu dañu créer ba pare dem nag en complicité ak le PDS ñu dugal projet de loi boo xamante ne bii tey aujourd'hui yàgg naa ko wax ay jeunes nee naa leen man man mii di wax ak yow xam nga sànq maa ngi dégg ngeen tudd Momo Cissé mhm. Momo bu ñëwoon fii moom il m'est témoin mooy suma xarit la <laughs> ñoo bokk ko ñooy naanandoo ataaya suma taaw Cheikh Bamba Dièye laa ko tuddee man le leader du FSDBJ, ancien maire de Saint-Louis, ancien ministre. maak moom chemine noonu nañ plus de 14 ans ñu ngi ànd. mais dama wax samay copain ma ne leen Bamba Dièye tuddee naa ko doom jaruluma xuloo jaruluma xeex tey aujourd'hui man j'ai été une fois à Kaffrine lors des élections législatives ma génn di doxantu Ousmane Sonko cortège am daje ak cortège Mimi Touré ñu dóorante ba gaañante seen garde corps yi am ay blessures yu doy waar ba ñu évacuer leen hôpital. Mm-hmm. Mimi Touré bi mu ñëwee discours bi mu a def Ousmane Sonko ak xale yi moo leen génne ba ñu rey xale yi mm-hmm. tey Mimi Touré moo nekk derrière Ousmane Sonko. donc éveil de conscience boobu moom laa bëgg a defal jeunesse bi tey les députés de euh, Benno Bokk Yaakaar. dañ doon tam dëmm les députés de Wallu. Mm-hmm. bu Ablaye Wade. tey aujourd'hui ñoom ñaar ñoo collaborer pour xeex tey un candidat. waaw donc moo tax ma ne la les politiciens dañu am ben jeu. Mhm. bo xam yow bo comprendre bo dugg ci pièce bobu yow tu es foutu. parce que liñu gëm moy c'est intérêt crypto personnel. amul ci ñom ci leader politique yi ko xamné jaral nga manam sa bakkan mën nga koo teg pour intérêt peuple bi amul. donc lu mel non nak bu amé soxnaana na na jeunesse bi am éveil de conscience. Mhm. xamné amna lo xamanteni man bu joggé pour xex ko man japp na ne ku ci dé da nga da nga def li non naan shahid da nga dé ci xaré té ku dé ci xaré yalla nee sa teraanga ëllëg mooy àjjana xam nga muy lan yokk nañ ceeb yokk nañ dëwlin courant bi cher na dund bi cher na jeunesse beeg peuple bi yëpp wàcc xeex ko ku ci dee dañ lay xam ne kii li muy xeex du intérêt politicien yi du intérêt ay ay ay nañu respecté constitution bi intérêt peuple bi la parce que da ngay am kër da ngay dépense damay dépense. Mm. suba bu ñu xeexee mooy loolu mais politiciens yi li ñu gëm mooy seeni intérêt crypto personnel. ku ko wax loolu moo am ku ko wax tamit loolu moo am. ayca nañu euh, jiital les euh, li nga xamante ne nii moo di intérêt général. moom moom mm. la wax. Euh, mm. Coumba Ndoffène ma ñëw ci yow certainement nañ dellusiwaat ci yow monsieur Thiam. mais laata loolu Coumba Ndoffène yow ban lecture ngay def ci missive bi nga xamante ne nii ñoom adressé nañu ko wala bokk bind nañ ko ngir rek woote li nga xamante ne nii moo di les acteurs ñu retrouver wu. wala ñu euh, dem ci euh, appel au dialogue bi nga xamante ne ni président